jërëjëf na ngeen def dëkk bi daal mbaa daal dalu leen bi ne ci réew mi man soj dama ko gëj a sax waaye depuis waa ji toog daal damay soj di soj dëkk boo xam ne poussière bi poussière bu metti dafay poussière boole koog seddaay bu tooy waar démb rek Karim mooy woo naan ma papa sa baat bi dafa changé ma ne ko waaw soj bi la mu ne ma waaw moom sax soj am na ci xam-xam waaw Karim yàlla dimbale na ko waaw ndekete Karim dafa demoon dëkk bu ñu wax euh, Somalie nga xam ne dëkk la àll boo xam ne suuf si day teel a jog ak yooyu bi mu fa demee ñaari fan mu soj mu dem ci médecin yi ñu ne ko da ngay ut garab bi bindal ko ndekete li mu toog noonu sax si hôpital bi Karim ngi doon dafay ay cours du soir ci médecine waaw bañ waa da koy faj léegi Karim day faj ay sojak ay kuuru ba dëgg yooyu yëpp yàlla may na ko léegi Karim moo ma yóbbante nee na moom wax dëgg yàlla yéen gi ngeen amoon sénégalais mooy falaat ma may yàlla dogalu loolu moom dafa bëgg eggali sama gis-gis ci réew mi mu ne ma papa ma ne ko naam mu ma man daal dama am yërëmtal ci jigéen Sénégal ma ne ko waaw lan mooy sa taxawaay ci jigéen ñi boo jëlee réew Sénégal boo ko jëlee mu ne daal dafa bëgg jigéen boo xam ne bés bi ngay juddu ci lañ lay commencé daggal salaire ba nga am 18 ans waaw loolu tubaab bi dañ koy def mais dañ ko bàyyi moom tubaab mi nag biñ ko bàyyee c'est parce que nit ñu ñuul ñoo leen fekk si ñu bàyyi yooyu mais Karim nee na ma daal léegi fu am ngénte bu xale bi juddoo ba ba muy am fukki at ak juróom-ñett at bu nekk dañ koy jox million. waaw laay wallaay xam nga loolu dina tax xale yi ku nekk eh bien nga nga góor góorgóorlu eh bien teel a teel a teel a sëy waaw léegi Karim nee na ma sax dafa bëgg góor ñi nag comme que loolu jigéen ñi la dafa bugg góor ñi tamit dimbali leen góor boo xam ne eh bien judd nga bës bi nga juddoo ñu commencé la utal liggéey waaw su ñu lay déposé sa liggéey yooyu yëpp dafa su ko defee nag ci diggante bi. bis bi nga juddoo waaw ci léeg <laughs> liir bi <laughs> waaw bés bés bi xale bi juddoo ci boppam ci ngay commencé am liggéey ah. waaw léegi waaw kay waaw liir bi liir bi bés bi mu juddoo ci lañ koy utal liggéey bu màggee rek day commencé directement léegi ñu fay ko li nga xam ne moom la moom la toog te liggéeyu ko yëpp ba am fukki at ak juróom-ñett xam nga yooyu nit ku baax moo ko mën a def Karim nee na ma pour programme sëriñ daara yi nag ah. taalibe yi nee na dootuñu bàyyi sax taalibe génn ma ne ko mbaa du am problème mu ne ma am naa solution nee na taalibe bu wàcc kaamin dalay dem nga utal la logement Màkka waaw kay Màkka ngay dëkk yow sa njaboot yëpp fa ngay nekk waaw waxtaan ak ñooñu tubaab yi naar yi d'accord nañu Karim nee na daal Sénégal am na nee na gis ku toog nee na bés bu nekkee président réew mi ñëpp ay liggéey man a bi loolu mënut a ne sa bàyyi sa xalaatu loolu loolu foo ko xalaatee mu ne ma papa dafa am dëkk bu ñu naan Jordanie. Jordanie mooy dëkk bi doon guerre guerre bi war na mot léegi juróom yaakaar naa defe naa juróom-benn dëkk ba nag dafa tojatoo ba kenn xamatu ko léegi nag naaru waa naaru Istanbul yi. Turquie ak Qatar yi nee nañ dañ bëgg a tabaxaat dëkk bi ne mais d'œuvre bi daal maçon Sénégal nañ bëgg. waaw ñu ne képp kuy maçon Sénégal war a menuisier plombier yooyu yëpp dañ leen di jël yóbbu leen ñu dem tabaxaat dëkk ba danañ def nag ci dëkk ba ñaar fukki at parce que dëkk bi li koy tabax yombul ñaar fukki at di nga ko li balaa ngay dem nag kenn ku nekk dinañ la jox trois cent cinquante millions wallaay moom la Karim yéene ci euh, kenn ku ne yow nag fa ngay toog nag fa ngay toog wax am kër yooyu yëpp Karim xalaat na ko Karim daal nee na ma bu demee ba nekk président ay jus de bisaab yi ñuy jaay ci mbedd yi ay boisson yi jóge bitim réew yëpp dañ koy bàyyi waaw nee na da koy bàyyi parce que da ngay am gan mu bert la te doo am boisson bitik yi tëj ndax waa ji vingt une mu tëj lépp te da ngay am gan bëgg ko jëndal boison mu bert la léegi nag nee na ma day jël kër gi fii euh, fii nga xam ne mooy seen o ut fa ay robinet bi spécial bisaab bi jingeer bi soow bii meew yooyu bii ay di tax wëpp Karim boole boo leen ko falee rek boole leen ko falee nee na kër gu nekk di nga am juróom-ñetti robinet juróom-ñetti robinet meew bisaab soow ndoxu sam-sam eh, di uul jus de bouy léegi nag Karim nee na boo demee ba sonn nag am na loo xam ne bu fekkee yaafuus nga koo xam ne da nga na yàtt ne yaa sa sawaroo liggéey hmm. nee na def wan nu ñuy defaree xaalis waaw nee na soxla soxla sax ngay liggéey ni ngay defaree xaalis da ngay xëy rek mun la daggal ay feuille sotti couleur bi wis wisal si dessin si rek te xaalis boobu ak xaalis bi ngay fayee ko benn lay doon mais nag waaw nee na waaw nee mais doo def lu passé un million par jour nee na daal waaw noonu waaw waaw loolu mooy da ngay nekk yaa fuus day yomb Karim daal li mu mujjee wax daal mooy daal nee na incha allah rabi mu ngi xool daal léegi koo xam ne Karim daal nee na daal yërmandeem mooy bu sañoon daal vraiment kenn dootul.